Lyon Lyon euh, euh, osmose bi fa am maa ngi nuyu suma mbokk lyonnaise ak lyon ñu muy kii c'est-à-dire que weeru koor ñeenti samedi yu ne dafa am benn tariixa buy organiser ndog ah, affaire daayira yi loolu tamit am na am na gis nga mais loolu ah, cest dire que chaque weer bu ne mm-hmm. weeru koor bu ne quatre kii day voilà day am tariixa buy organiser ndog mm. ñu daje waxtaan diine mm-hmm. voilà après ñu Euh, dolli ndogu saa fonte ku nekk dem mais loolu dama ragal ne dañ koy perte. loolu tamit waral na waral na waral na aussi ma soxla woon wax loolu parce que loi yi ñu wote noonu dootul amati surtout surtout. dootul amati surtout France parce que lépp lu jëm ci wàllu diine. Mm-hmm, mm-hmm. dañ koy tere loi yi dugg nii dina metti torop. exactement mais loolu ñu ngi koy wax sànq mooy il faut ñu wone ni ñun. am nañu suñu positionnement. ma joxe benn. quand vous êtes ensemble vous êtes plus fort. et puis seen état seen état jàppale leen. parce que ñu dañu am benn doom yi di jàngi dafa am lu ñuy dégg école ba. man samay doom sama doom mi nekk primaire benn jour mu wàcc fekk may julli ma naan allahu akbar mu toog si salle bi di ma xaar ma pare ñëw toog ma ne papa ma ne ma man mu tiis un terroriste. dégg loolu lañ loo mu ne parce que disque terroriste allah akbar dégg nga. Mhm. loolu lañ leen léegi boo waxtaan la sa doom ne ko déedéet nii ak nii ak nii la keneen bu génnee de yaakaar leneen. nga boo ko ancré wul dans lan moo ko mën a def mooy. mi ngi mi ngi euh, diaspora yi par exemple ma ku nekk li nga xam nga war a mën a wax Lyon wala France ci ci yaatal euh, daayira yi ñu ngi fa am mais également ar kër yu jàngale alxuraan yaa ngi wax sànq kër Samba mhm. mais da ngay gis ay ay ay association yu jënd kër. Mhm. pour di fa jàngal xale yi non non association yi si boppam ah, ah. di fa jàngal seeni doom par exemple les ressources de la vallée du fleuve ñu mm-hmm. ngi fa am sama ginnaaw kër gu rëy mm-hmm. di fa jàngale ba indi sa doom mm-hmm. nga joxe somme boo xam ne du la sonal nga ñu jàngal sa doom alxuraan bu bëggee la ñu jàngal ka mais loolu mu ngi am mais des na tuuti dootul amati parce que loi bi dugal nii da koy tare